Soleil sur notre espoir, debout frères, voici l'Afrique l'assemblée, fille de nos cœurs verts, épaule contre épaule, mais plus que frères, les Sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. sali fi kaame lii ku ko munul dee rek la war ku ko munul da dee léegi dama jàng nag waaw diggante unisol la mer bi unisol la step bi loolu jàng naa téeméeri at ah.